déglul ma jooy jooyu wolof déglul déglul ma jooy jooyu wolof mbar ma dafa réewum wolof ba ko fi seeru yëf te wootiwul fetal yi sox boo jàngee téere yi mbaa nga yàgg déglu danga nga dégg xisab ku ñuy wax bir siis bir siis ay jaar jaaram ak iblis li ñu koy nett li bari na waaye ci gàttal nee nañu dafa nekkan jaamukatu yàlla bu beroon rek di jaamu yàlla na ko iblis naxe nag mooy daa fexe bañ indi ci moom jigéen joo xam ne day daanu ay rab ndax moom jaamukatu yàlla bi di Birsiis mu ñaanal ko mu tane naka ma ko ñaanal nag mu tane gannaaw ba tanee ndof ga dil siwaat ñu indiwaataat ko suñ ko indee rek saa yu ko ñaanalee mu daal di mel ne ku tane mujj nag jël yee di jege di jege bañ ne nañ ko far indi bàyyi ko fi moom rek far mu di ko ñaanal naka ñu ko indi nag bàyyi ko fi moom nag seytaane fexe fexe bam mu jigéen joojee mooy ak moom yàlla ba jigéen ji ëmb seytaane daal ko ne yow ni ñuy waxee sag baax nu ñuy waxee ti ne jigéen ji yaa ko ëmbal waa ji rey ko suul ko mu daal def noona wëlbatiku rey jigéen ja suul ko ba mbokk yi dikkee di ko wax bu leen di lay seytaane fexe ba xamal leen ne leen moom kat daa joteek moom moye moom yàlla ba mu ëmb mu ragal nag gàcce tax mu rey ko suul ko ci bërëb sàngam net li boobu siiwe na noonu waaye boo dee xool ci tafsir bi ñu wax tafsiru ibn kasir bi ñu gàttal ndax daam bu ñu gàttal fi su borom di waxe kamatali sheytaani id xaala lil insaani kfur falamma kafara indi bari bari'un minka andi na fa xisa bii ni la ko indee dafa am jigéen ju doon sàmm ay gàtt fekk ame na yenti mbokk yu góor moom jigéen ji mu daan def nag bu guddi jotee am na ab labbe bu nekk foofu mu dem fatu ci kër labbe ba labbe bi wàcc nag njaaloog moom bu mu ëmb seytaane ñëw ci labbe bi ne ko yow day ëmbal nga ko te xam nga ne yow ñëpp wax na sag baax ñëpp dégg la kon nag rey ko te suul ko mu daal koy rey suul ko seytaane dem ci ñeenti bokkam yooye kenn ku ne mu feeñu la ci gént xamal la ne la labbe ba day ëmbal na seen mbokk mu jigéen ma ragal na gàcce ba rey ko suul ko ci béréb sàngam bu ngeen demee yàq gis ko ba ñu xëyee nag kenn ci ñoom ne waaw man daal li ma gént biig jaaxal na ma xaw ma daa ko war a nett li ngeen dégg xaw ma dama war a bàyyi ñu ne ko ah nett li waaye naka ma ko nett li keneen ne ko ah man day ni nga ko génte noonu laa ko génte keneen ni mayit man day ni ñu ko génte noonu laa génte xam nga ñeent lañu waaye seytaan yi moom moo leen feeñu noonu sol leen ko ci gént rek ñu bokk géntandoo ko ñu daal di ne ah lii de moom ñàkkul lu xew ñun ñëpp daal lu ñu koy bokk génte mu demee nii nan dem ca buur ba wax ko ko ñu dem ca buur ba kalaame labbe ba ne ko nun daal li ñu jàpp mooy sun mbokk ma daan sàmm ay gàtt ci wetam te daa fàttu ci moom ëmbal na ko ragal na gàcce rey na ko suul na ko ci béréb sàngam naka ñëw nag daal di wàcce labbe bi dem ak moom di ko yóbbu seytaane kar ko ne ko ah lii xewkat man mi dong maa la ko teg te it la la musal man rekk maa ko man bala ma la ci musal nag da nga maa sujjootal benn sujjoot boo ma sujjootalee rek ma daal di ci musal mu daldi koy sujootal labbe bi daal sujootal seytaane ba ñëwee nag ba ci buur bi buur bi ne ah sama yoon man day seet leen rek nu ngeen def bokk yooyee daal di koy rey bi mu nettalee nii nag moom borom tafsir bi teg na ci ne ñu baree bari ci nit ñi dañuy wax ne bar siisaa la tudd kon nag mel na ne barsis rek la kenn kee